bile hibar nak dona na hibar bi nga xamanteni nak ñenn ci askan yu Ziguinchor ñaawlu nañ ko baax a baax benn soxna bi nga xamanteni nak ay cheikh la am ba muy matu seen lim ma nga tollu ci ñent ñeent nak mu jé ñak seen mbakan ci hôpital régional bu Ziguinchor bu sukkandiko ci hibar bi nga xamanteni nak jot nañ ko te mu ko ci njabotam li ni mel wa hôpital régional ñoko waral waral da japp nañ ni ñu ko doon taxaw nekkuloon ñi nga xamanteni nak seen loxo set na ci mbirum paj lolé mo taxit nak ñu daldi di baramu baaraamu tuuma ñi nga xamanteni nak ñoy liggé ci hôpital régional googee jàpp ni ñooñee ñoo tax ba ñu ñàkk seen ñeenti doom yooyee soxna si nga xamante ni nag foofee ca hôpital régional la doon mattu mu ngi fay yegg le 20 septembre bi ñu génn def na fa nag lu toll ci juróomi fan laata muy accoucher ci césarienne ba muy accoucher nag benn ci liir yi jot na ñàkk bakkanam mu des nag ñett ñetti yooyee des nag ay waxtu rek a ci tegu ñooñee tam ñàkk seen bakkan li ni mel nag tax ba ñu samp ab laaj ana naka la tey prise en charge bi nekkee foofee ca hôpital régional bu Ziguinchor ñenn ñi ngi joxañ lu jëm plateau technique maanaam jumtukaay yi nga xamante nag yooye lañuy jëfandikoo ca hôpital régional bu Ziguinchor ba tey nag buñ sukkandikoo si ñi nga xamante nag jege nañ lool famille soxna si ñuy xamal ni nag mbir mi li ko waral hôpital boobee nag amul ay couveuse loolee nag ba tax nañu daal di interpellé ku yor kàddu hôpital régional bu Ziguinchor Pascal Faye lay wuyoo àdduna ci li mel du problème mu couveuse moo posé wu. lii dafa nekk grossesse yoo xamante ne. souvent dafay indi ay complications ay problèmes. couveuse yi ñu ngi foofu noonu am na ñetti couveuse yoo xam ne fonctionnel bi ma ko waxee ne amul couveuse dem naa ba foofu j'ai vérifié gis naa ñetti couveuse fonctionnel am na sax boo xam ne benn xale ñu ngi ko fa tëral yeneen ñaar yi amul ñu waaye bu mbir mi demee ba toll fu mu toll nii est-ce que waruñu rawale kii nga xamante nag soxla na ndimbal yóbbu ko feneen bu fekkee hôpital bi ñu nekk nekkul hôpital bu taxaw wala sax manqué na ay jumtukaay yi xam nga lu compliqué moom am na fi amaat fi te ñu réglé ko cela ne veut pas dire bi ma waxtaanee technicien bi boobu ma ne moom jugé wul nécessaire ah, yóbbu ko Dakar du ma yàlla wala moom it du yàlla pour dire que bu demoon dakaar dinañ dund mais c'est fort probable que bu demoon Dakar it ni lay dem looloo taxoon mu woo leen ca njëm benn ne leen eh, grossesse bi grossesse à risque la taxul nag nga toog ne grossesse à risque la mën na am fu muy mujjee du baax nga toog seetaan da def li ngay def yépp li xew ca hôpital régional bu Ziguinchor tokk la ci li nga xamante nag nemmeeku nañ ko ca bërëb fajukaay yi nekk fii ci Sénégal loole moo tax nag autorités yi ñeel loolu li mel war nañ jóg taxaw temm ngir saafara li ni mel ndaxte askan wi moo ngi wër di loru